waaw maa ngi nuyuwaat ñëpp di sant yàlla bu baax bu ñu mayee ñu fekkee waat tey réunion évaluation Magal Serigne Abdou Khadre réunion boobu nag dañ koy def pour xool engagement yi nga xam ne chef de service yi jëloon nañ ko ci CRD bi fan lañ ci toll bi ñu waxtaanee nag gis nañ ne chef de service yu bëri commencé nañu euh, exécution wu engagement yooyu mun nga cee jël euh, service d'hygiène santé commerce sécurité douane eaux et forêts ak euh, énergie ku nekk si ñoom rek commencé na di respecter engagement yooyu nga xam ne jëloon na ko euh, gis nañ nag ne am na quelques jafe-jafe yu am ci wàllu surtout axe routier yi maanaam defaraat yoon yi loolu aussi euh, dinañ ko yeggee ki nga xam ne mooy kilifa gi gis nañ aussi ci wàllu ONAS camion yi nga xam ne ne sàkk woon nañ ko yegg seegul waaye loolu tamit dinañ ko suivre ak comité d'organisation bi di wax rek ne euh, dinañ topp euh, service yi pour xool fii ak le 9 nga xam ne ne moom mooy doon jouru màggal bi lépp loo xam ne daal xaw na cee sooxe ñu mun koo joyanti pour que màggal bi am ci condition yu baax euh, di profité rek di sant chef de service yi ndax ku nekk si ñoom engagement bi nga xam ne ne jëloon na ko ci jurbeel bu ko deful ba mu mot tamit mais moo ngi ci yoon li ci des bareetul donc di sant aussi mairie bu Touba bi nga xam ne ne évétement yu mel nii chaque fois da ci dugal loxoom euh, surtout ci màggal bi yi nga xam ne moom mooy màggal Serigne Abdou Khadre di sant aussi euh, le sous-préfet mi nga xam ne moom mooy assurer coordination bi au niveau local. Mhm. Mhm. Mhm.

waaye li ñu mën a wax rek ci par rapport à ça par rapport à ça waaw ñoo ngi ci parce que am na déjà benn réunion bi jotoon a am xaw ma ndax teewoon nga ko wala teewoon ci diggante ONAS Ageroute ak euh, ak euh, hydraulique donc ci problème yooyu moom vraiment autorité yi nga xam ne ñoo ngi ci au niveau du département ñoo ngi ci surtout ci wàllu euh, réfection mooy axe routier yeeg yooyu Euh, loolu nag euh, comme ni ma la ko waxee sànq rek peut-être ajorit bu teewoon dina gën a indi ay leeraat ci li euh, ci li jëm ci loolu sànq yaa ngi ma doon laaj ci wolof ci wàllu prix yi ak njëg yi nga xam ne wàññeeku na semaine bi passé rek amoon na benn conseil régional ci consommation bi nga xam ne def nañ ko Diourbel am na nag ay prix yoo xam ne jàpp nañ ko pour région de Diourbel Euh, chef de service départemental bu commerce aussi moo ngi ci terrain bi moom ak équipe pour saytu ndax loolu ñu ngi koy respecté wala respecté wuñ ko donc sànq dégg ngeen ko bi mu jëlee kàddu wax na ko ci wàllu mburu mi mesures yi nga xam ne jël na ko ci ci wàllu approvisionnement aussi ñoo ngi moo ngi saytu bu baax marché bi waaye aussi produits yi nga xam ne dañoo impropre à la consommation ñoo ngi koy retiré ci ci ci ci boutique yi waaw ci engagement yi nag euh, yu ci bëri buñ ko motalul am na ci ñoo xam ne ñoo ngi ci commencé nañ ko waaye nag comme màggal bi le 9 la tey tey tey ñoo ngi nekk le trois lépp li nga xam ne desoon na dinañ leen gën a soññ fii ak le 9 vraiment ñu mën a matal engagement yooyu mais nag ñi ci gën a bëri moom ñenn ñi bu ñu parewul ñeneen ñi aussi ñoo ngi ci ñoo ngi ci yoon bi euh, lu ci bëri daal respecté nañ ko xëy na yenn jafe-jafe rek lañu am ci côté ONAS ak euh, AGEROUTE ci wàllu entretien routier yi mais yooyu yëpp dinañ ko topp incha allah en rapport avec comité d'organisation yi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya ba'dahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu monsieur le préfet ñu ngi lay nuyu ñu nuyu fi préfet ñu nuyu mboolem service yi nga xam ne ñoo ñëwoon tey fii ci kër Sëriñ Abdou ngi leen nuyu ci turu Serigne Cheikh Mbacke mi nga xam mooy borom kër gi di ci fi nekkal Cheikh Abdou Khadre nuyu ci turu njaboot gépp di bu baax di leen dalal fii ànd ak comité bi nga xam ne ñoo yore ñooy saytu màggalu Sëñ Abdou Khadr ñu am mbégte bu baax di leen dalal fii ni ñu ko baaxoo def at mu ne buñ defee CRD ca Njaaréem ba màggal des ay fan monsieur le préfet ñëw fii ànd ak service yi nga yan dajaloon Njaaréem ngir ñëw xool engagement yéen jëloonte Njaaréem xam fu mu ci toll ñu koy rafetlu lu baax a baax di rafetlu ni ni nga dirigé waxtaan wi di rafet lu baax itam kàddu yu fi jóge yëpp suñ xel di dal baax itam ci li ci suñ kanam nem daa amee rek ñu jàpp na dana dana amee noonu leen gërëm di leen sant di sàkku ci yow nga jotuñu sunu cant san gërëm ci gouverneur ak mboolem say kilifa yëpp seen bi bég na ci yéen ci seen taxawaay ni nga ko waxee nag mm, service yi bari na yi yoo xam ne ñu ngi ñu ngi dox ñu ngi ci liggéey bi xanaa ñu beral si cant rek maire monsieur le maire moom ndax ban jógee foofu rek ci suba sa moom ca la tàmbali liggéey ba ca boobu ba tey mi ngi fi saa xëyee bu ne dana ñëw ci liggéey bi moom ñu ngi koy beral cant waaye ñu ngi beral ma dem service yi ci des ma beral ak cant Sonatel ñoom itam ndax ñoom it seen engagement yi mel nañ leen waxoon lépp def nañ ko ak waa Sénégal yi xanaa benn problème quelques problèmes mooy yooyu ngeen wax service de seen moom yaakaar naa ne moom lan bëggoon moom du mën a nekkati ndax 150 kër bëggoon ñu ngi ci 19 ci ñetti 150 kër lan bu lan daa def ñoom ci leen ñu ngi ci 19 te yaakaar naa ñetti fan bu ñu ko liggéeyee liggéeyee te faw ñu taxaw ndax dimanche ak alt dimanche altine mu mën a liggéey ci kër yi ndax gan yan fi nekk kon ñett kon suba ginnaaw suba ginnaaw suba moo def seen liggéey yaakaar naa moom lan lan seen soxla woon lu man a nekkati moom waaye teewul nag nan góor rek ñetti fan yi ba def ci leen man lépp ba ki nga xam ne kër principal yi nga xam ne dal yi fi nekk ay gan di fa nekk yooyu am nañ fexe ba lu mu gàtt gàtt ñu weesu ñu romb ko moom ak kii di ak kër kilifa yi asuro asuro tam ñu ngi leen di boo xam naa ñoom yàlla dafa ne réunion bi bu ñëw ñun bii itam ñëwuñu waaye ñu ngi koy jot jaar ci monsieur le préfet rek mu soññal leen ndax fii dafay am yoon yoo xam ne si daa jege kër gi lool te yoon principal la pour ñu siy ñëw ci màggal gi ca yàqu lool donte la yàqu sax bëri bëriwut mun ti xëyeen gont ca dana dañ waaye bu ñu ko defar tam dana am ak gàllankoor ci liggéey bi kon ñu ngi sàkku ci yow nga doxal ñu ci bu baax a baax waaw daaw yi xel dana ci baax am na ci ñoo xam ne moom seen liggéey ci kaam lay lañ koy man a xam muy police gendarme sapeurs-pompiers ñoom bi ci màgg lañ leen leen di soxla waaye yi nga xam ne mooy yi jiitu moom moo daan doon service d'hygiène waa waa mairie bi hmm, ndax saa nga Senelec ak Sonatel yooyu la ñuy doon la ñuy soxla ñooñu nag wax dëgg yàlla lan leen soxlaa ñu ngi ca ndax bu dee courant bi. diggante Touba ak Baxdaat foofu lamp yi yëpp yàqu loolu diggante mairie bi ak Touba ci kanam dox nañ ci ba foofu le te jii ci ngoon dox nañ daan taal ba fépp takk ñu dese nag ñoom itam waa bi ak waa Saint-Lox muy quartier bi lamp yi bari na fi lakk ak yoon wi nga xam ne moo jëm yoon Baxdaat tàmbale ci kër sëñ bi jëm jëm Gede yooyu la ak yooyu daal moo leen dese. côté yëpp daan woon maam moo wax na tàmbali nañ ko tey kon ñoom seen ñoom ñu ngi ñu ngi dox bu baax a baax am na lu bees mm, amul lu bees la fi la rek ni leen di dénkir mooy kuy màggal màggal boo koy woote danoo bëgg ka ñuy màggalal ñu roy ci moom kii ñuy màggal la mu Cheikh Abdou Khadir aw meloom ak i jëfam ku ñëw nga jéem a indaale melo woowee meloo mooy nag ak jub nga ragal yàlla aku wàcce boppam aku doyloo ma tawakkul doyloo doyloo boromam ak sàmm digganteem nit ñi ak digganteem boromam dara daw dara daw ci soxe li ko war ci borom lépp lay def waaye àq nit ñi itam ku ne ma jox la sa àq kon loolu la ñuy màggale ku dikk daal nga indaale melo yooyee boo dikkee itam nga dem ci barab yi siyaare yi siyaare yi fa seet fa ku mën a jàng alxuraan nga dem ci fi ñuy jàng alxuraan ku mën a jàng xasida nga dem fi nag ku dem siyaare gaa yu baax yi fi nekk yëpp ak waa kër sëñ bi ak njabootam loolu moom la ñuy màggale ca ànd fi ak jub ak maanuta loolu daal mooy màggal gi ñun ñi nga xam ne ñooy màggal tam ku dikk yi fas yéene la dalal teral la ci ay berne boo bëggee jàng alxuraan yóbbu la barab ba ñuy jàng alxuraan am na jàkka ja dañ fay def ay tant yoo xam ne jàng alxuraan jàng xasida moo fa nekk loolu muy màggalu Sëriñ Abdou Khadre waaw kii waral màggal bi moom mooy Cheikh Abdou Khadre Mbacké mooy doomi Seexul Xadim mooy kii doon jiite jumaa jii bi Cheikh Modou Fadl jógee moo ko jiite lu mat daanaka ñaar fukki yoo xam ne lu dul bi mu demee Makka aji tërriwu ko te yëpp mooy jullit te it ba mu doonagul imaam itam daa ko tarde ba Cheikh Modou Fadl itam ajuma yëpp da koy julli koo xam ne li jiite woon ci mbir mooy julli moom la jiite ci léppam koo man di doon loo rëy rëy boo nekkee ci moom mu noddee nan la fa bàyyi dem julli ci du gëstu du dégg lu dara mooy nit ki xam ne mooy ki xam ne mooy doole woon boromam musta wuti dara mooy ki ne musta leb leb bor amu ko ci àdduna naka lim am doy ko sëkk lu mu woon mën na ko moom mooy kooku mooy ki nga xam ne moo moo moo amoon istixaamatu ay waxam yëpp musta wax ci génn istixaamatu mooy ki doon wax ne dama bëgg yàlla danga koy def bañ ko def ifraat bañ ci def tafrit ëppal jaamu yàlla ëppal ko wala nga gàttal ko yëpp la war a tere danga ngaa war a nekk osati yi ku diggu doomu te sag jaamu yàlla nga dëppale ko sunna si Yonent bi sallallahu la digle mooy ki nga xam ne istiqaamatu wa sunnatu ci la tegoon ñaari tànkam ku ko mas dénk sa bopp itam yii la la digal farlu ci jaamu yàlla góorgóorlu ci liggéey moyoon ko tooñ lii mooy lim daa digal ku ko dénk sa bopp xam na la sunu borom ba mu ñuy bind jaamu yàlla tax mu bind ñu nga war jiital ci lépp liggéey yoon yoonu sëñ Tuubaa yi loolu bu jaamu yàlla bu jàll liggéey la ci teg daa da wax ne ku li ku dul liggéey mooy tax nga mën a moom sa bopp boo liggéeyul rek faaw nga topp ci ginnaaw nit mu yóbbaale la moo tax bu la jëyee jaama liggéey teg la tere la mooy yoonu tooñ sa boroom tooñ sa borom mooy lu sa borom tere nga def ko loolu ab julli da ko war a moytu waaye tooñ sa moroomum jaamitam itam da ko daa tere ndax tooñ sa bo tooñ sa borom li muy li muy rëy rëy tooñ sa borom jaaw daanaka moo gën a rëy ndax suñu borom moom ku am kàttan la ku am yërmande la ku mën a jéggale la waaye sa moroom jàmm nag boo ko tooñee bu nee ba fee moom la day soxla loola du la ko jéggal mukk kon moo tax yooyu da ko daa tere kooku mooy suñu doxalin nii la